dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen raw ñu ne yéene euh, faram-fàcce leen communiqué bi nga xamante ne nag jëwriñ bu ñu dénk wàllum biir réew mi euh, jot na ko fësal jéppal ko nag jëwriñ bu ñu dénk euh, kii nga xamante ne moo yor lépp lu jëm ci wàllum élection yi rawatina ñi nga xamante ne nag jëmale ko nag ci ñi nga xamante ne dañ ne la condamné wala sax ñu raje leen wala sax ñu retiré leen ci fichier électoral yi loole nag bu ñu sukkandikoo ci lettre bi nga xamante ne ministre bu yor lépp lu jëm ci élection jot na procédé ci retrait fichier électoral sociale yooyee ci ñi nga xamante ne rek ñoom la ñu concerné ci noonu am na kenn bu ñu wax nag Ousmane Sonko moom nag ñi di tribunal ah, bu instance bu Ziguinchor nag jotoon na attaque ci noonu tribunal bi dafa bëggoon ordonnance ba nga xamante ni moom la sàkk woon numéro 1 12 octobre 2023 ngir rek ñu dugalaat Ousmane Sonko ah, ci liste électorale yooyu waaye nag question bi des ba tey ji moo di amagul lenn loo xamante ne nag jël nañ ci dogal wala sax ñu àddu ci définitive état bu Sénégal moom moo fas ne décider ba noppi exercer lu jëm ci yoonu recours boo xamante ni dina ko soofur kii di Ousmane Sonko par conséquent dossier bi nag dañ koy suivi dañ koy topp ba tey jii waaye tamit recours judiciaire mi ngi ci yoon ba nëgëriñ terme audit bi nga xamante ne jot nañ ko amal ci processus état du Sénégal nag fas nag conformé lu jëm nag ci décision boo xamante ne dina ko rendre comme niñ ko daal di bëggee comme ni niñ koy defee bés bu nekk ci noonu tamit war nañu éviter wala installer sax lépp lu jëm ci polémique boo xamante ne daal nit ñi dinañ jàpp ne direction générale des élections moom dafa violer loi yi waaye tamit ñàkk respecté loole nag di ab communiqué boo xamante ne nag jëwriñ bu ñu dénk wàllu biir mi moom moom moo ko jagleel jébbal ko nag jëwriñ bu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum élection yi ngir xamal askan bi rek ne li tax ba tey jii ñii di waa direction générale des élections joxaguñu ki nga xamante ne rek mooy mandataire bu euh, Pastef di Ayib Dabe Ayib Dafe dafa fekk na rek dafa am loo xamante ni nguur gi moo ko ci war a dogal ba noppi ñu doo ko ko mën a jox loole nag ngir ñu mucc ci faw rek ñu bind communiqué bi ngir nit ñi bàyyi ko polémique bu bari bi nga kaddu ndaxte bu dul dara ak kii di ay defe delluwaatoon na foofee tey jii waaye ba tey mu jotuñ ko recevoir te moo ne ah, ci ay waxam am na ñu doon dugg di génn ana lan moo tax moom mi la nag nanguwuñ ko gis gis-gis bi nag askanu Sénégal yi benn rek lañ ci jàpp ne dañ ko ko bëggut jox ndaxte buñ ko ko buggoon a jox gannaaw ba nga xamante ni ah, juge bu euh, Ziguinchor bi joxe na dogal ngir ñu dindi lépp lu jëm ci radiation Ousmane Sonko ci saa ci ëllëg sa lañ ko waroon a jox kon nag communiqué de presse bi ngeen gis ñu bind dañuy ñëw rek di firnde wonaat jaar-jaar yi nga xamante ne foofee lañ mën a jaar ngir mën a jox Ousmane Sonko wala sax mandataire bi lu jëm de fichier de parenage bi ñu ban daal di tuumal maanaam ñu ngi di direction générale des élections waaye nag xel daal dina tey ndaxte ñaareelu yoon moo fay dem te ko bu yàggee nag nit ñi daañu gëm ne mbir mi dafa lalu wàllum politik